laa doon nekk alam na sër bismillahi rahmaani rahim laa xawla wa laa quwwata illaa billahi al-azim bismillahi lumière lumière lumière eh. sama doom dama njaay yoo maa ngi demee seen seen bi wala yaa ngi ci gaynde adama xëy ca ko dama xëy ma fi dóori ma xëy ca yaay xam sunu gëdd di ko defante ñun doonu liggéey bëgg sayu kaayam maa ami bëgg dem fekk nu ko fa déwén da doo dem màkk loolu tax ñëw na waaye dégg naa toj nga fa yàlla na a met jeet ki lay màgga sàmba da joomaa ngeen mel seen seen bi yal na la waaj bi jik commenté baax kontaan ci moom adama xayta ko duma xayta may ma maam tóori ma xayta njaay dumbe sama rakk la maam ay yaayam maam am na yaayam góor gu baax Souleymane la baayam tudd Souleymane ak Ibrahima Souleymane ak Baye Malick baal yi. day amit toogal. Aliou Dieng. Dieng mi ngi si suuf de. waaw Dieng du yëg bàyyi. waaw yëpp benn la rek. mi ngi si man. non bu ñu toogee bu ñu dalee rek dinañ yal na barkeel Pablo Mbaye sama sang la ñu jaaji birangaan baaye nga kebe meer maaro be ngoone ma samba ngoone biram ga ma ngoone maa nara yaayam ko dinga laandi sidi door ngoone bi xaay sama sama jabari sangalal naa ma bëgg xadi mbaay ma bëgg sele ma bëgg sele ab mbay Mor Saaram ko fa ngoor ñëpp ñëpp samba antamaari gànn paar ma jigéen biram farba samba saane sappend mboo jëleen jongo may kàddu ngeewal lal jaaja bi rangaan sa nga kebe meer Pablo Mbaye la la dénk ajaratu yi Ami Njaay gu fa ngoor ñëpp ñaba samba Anta Mali Gana Paar seen maam ma jur yoon biram Farba Samba Saneex saa penda moo jëleen jonga may kàddu Yaasin la sa yaay tudd Cerno baayam a nga Abdulaay mbokk ndayam ami yaay mbakki ma bugur sele la yaayam tudd ma bugur sele ab sambay ab saaram ku fa caam ngoor ñëpp ñëba samba Anta Mali Gana Paar ma jigéen biram Farba Samba Saneex saa penda moo jëleen jonga may kàddu Pape Lo Mbaye la ñu la dénk jaajo Birame Ngane Ba ay man ka Kébémer maa la ba ngoone maa samba ngoone ak mi ci njas la sama jigéen caam fari ngoma jigéen caam maali ma jigéen caam jigéen bi jéer mi ci diggante ñaari ndaat yaasin ceerno la saba ay tudd xadi mbaay la ayum tudd ma bëggul sele ab saaram gu fa caam yal na leen dig sama sët ngoor ñëpp ñaba samban tamaari gànna paar ma jigéen biram farba maami na faatu mangu kura yey seen naan andungu xari caam paati xari njaxeer daawi men mbul wura saana sogeer yal na leen jëkk yaasin mbokk ndayam maamami njaay yaasin borom bàjjani ci lambu dis may sa bàjjan paati fa rey sukku mbaag maa bi pondaama dee njeme yendaan diggante mbay ak si ñëy mbul wi ma kumba sa kumba samaam ba jëwal la battal la demba ay ba jëwal nga gis ndam boog may sang ma caam kumba xolam mi ci géej supee ma ndeena njaay ndax mi ci bari biram benn da tay jaay maar mi ci bëccam Cheikh Demba Bor sa la sa yaay tudd moom la ñu duppee Cheikh Demba Bor sa njaay wàllu wi demba daaru daaw ngoñ dëng laan bi sama jabar sang ji waa ñëwal maa ngi jël maire Moustapha Diop ah, ah, ah, Ahmed def na maire de la commune député assemblée nationale ambassadeur ca Gidda ajaratu Maguette Sall maama moori dem kër Serigne Touba am fa sëñ Ousmane ak soxna Daba ak dan sangoo ne joor Demba waar joor. may ma am may ma xaaral yow yaa fee waaw waaw. salaam damay bëgg a tagg sama doom yi dëcc bi ta gànn. Alaaji Mbàkke la ñuy seen baay. mbokkum ndeyam pap mi ci Touba. ñooñu oh, ñooñu ma Alaaji Mbàkke seen baay ga Touba. Amadou Faye dee Samba baayam a nga kees waaye Amadou Faye dee Samba dee ci jërë la baayam tudd dee ci jërë mi ci seen la di kappee na yaa seen meew ju nga ci yaa ngeen jërë kumba ci geesaan wol jooju neegi jaxaw jërë kumba kolwaan ak jumba kumba kolwaan kumba fay war la saan biram jaxeer biram Samba janjaari ay laaw la cet laaw la xel ba mu dalagul la baaba njéeme alaaji Pape Faye la ñuy woowe seen baay ma nga Tuubaa yaat ma la ñëwee sa baay barki démb la jóge ca yonent bi ànd ak Mamadou Lamine ñoo ñaar laa ji màgget la seen baay tudd waaye xari caam yaay mu ci joor gi ci caaro yi ma xuree ja baay ma nga ngay ma xuree caam turee géy ndaa géy ndaa ma soog a lay ci géej géej brahmar paatam ñol màkk ga ñëmbul al nungu xari caam paata xari njaxeer daay mbul bur war a saam sigeer ay laaw la cet laaw xel laaw ca ba mu dalagut décembre seen maama nga njaay mbëjeen coro sall yaay manga pom lebar coro ma njoboog maar isa ko mbaay seefur maal joor kili cangaay masamba juuf ak jaar borom jaar bu ci barsiin ajum naar mi ci njoob njerka di mi dam baay ma ñoom di caatu maam bi tub géwol gi ay laaw la cer laaw la cer tuba mu dala gut alaaji mbàkke seen baay de seelu ñu ameelu ñu bor jaam bu mu am woon na ko yonent de ci jërëmi ci siin la di ka yaasin meew ji nga ci yaa ngeen jërë kumba ci ngeesaan wal joojo neegi jaxaaw jërë kumba kolwaan ak ñu mba kumba kolwaan kumba fay geloor bi saandoo biram jaxeer biram samba janjaay Pam Aara sa Ablaye Gueye mi sax ñuy woo baayam waaye Ablaye Gueye mi sax adiya ba bira xaali bira xaali dem ba fermbul am ko xadi campaate xayu daay mbul mboroon saanu sigeer loola bokk ak sa baay Alaaji Mbàkke yu fay màggatay baayam màggat xari caama yaayam xari caama xuree jaay baayam ma xuree caan ture géej géej ndaa ma sogalay ci géej géej Birahmar Patam ñal màkk ay suñu doom yi neewu leen ñun ak mbaay lekk naa sa cere ngoon de ca bint gànn da ngeen a toog ba seenum naw la ñëw ngeen dugg ci waaye noonu ngeen mën a def ndax seen yaay day fóot na laabal na tubaarkàlla macha allah seen ndey yi bañ leen indee ci kër gi ba tey kenn jëreegu leen fenn

waaw ñoom nañu wàcc kay. wàcc leen moo am jom ko ay waay da cee jëreet ne di siin la di penda wal daa da taxaw sama doom yee gore bilaay sama doom yee gore. wal jaaja jaxaaw maaw yaa gore ay waay juddu beeray deret jeegoor sama doomi jomba ñaaw numbe mi jomba ñaaw woolu naa ay waay ngay ami lay way tey maa ngi la way yow la nu dëkkee sa maam yaa way ame ale tey maa ngi way yow la nu dëkkee bàjjan nu yaa ma caam ku ma xoolee am yambar takku sayu leen ak wayu gàcce ngaalaama Pablo Mbaye lañu la dénk jaaja birangaan baay mu nga Kébémer maalo be ngoone samba ngoone biram ga ma mi ci la sama jigéen caam ak fari ngoma jigéen caam ak maali kumba yal na ci yàlla tofal wér ak njaboot bu barkeel tabaarkàlla macha allah sama sët yi taxawaalu leen bi waaw ma ngi ne yéen da nga wut micro sant bi ah ku yëpp fay yëpp fay naa bo bopp gaal jëkkee su la teeru dee kumba ndaam ay sama doom yi tey jéeg nañu bu ñu mere eji bu waalo kari caam seen maa ma nga caaroy ma xureeja baaye ma nga ngay ma xuree caam ture géy ndaa géy ndaa moso ko lay ci géej géej bramar paatam ñoom màkk sambaare ga ñëmbul ay sama doom yi tey ngeen bu ngeen mere eji bi waalo

ay pël bi yeewul nañ na saane ne gilaay biram samba dëkk ci sin la bi ka penda yaasin ñëw ñi nga ci yaa ngeen jërëtuma ci ngeesaan wal joojo neegi jaxaaw pël bi yeewul nañ na saane ne gilaay biram samba xari caam ma xureeja baayam ma xureeja cantre gay ma sange ci geej biram amar paten ñoom ma ka gañamul way xaritam gay xala yaayam xala ñanga yaayam ma sama leen ngoñ ngoñ ñu takk tulub téere laala tul ndooma kollu baa di ndar ay waay li mu bokk ajartuma ami njaay li bokk ajartuma ami njaay yaayam ma yaasin ñanga yi baayam waaye loolu ngeen bokk ajaratu Yaasin Njaay maa Ami Njaay bàjjanam tubarkalla ma sàlla sama doom ñu dénk ko Aale Njaay nag tubarkalla ma sàlla ay